dañuy sant yalla bu baax vraiment ci euh, bés bi nga xamné dañ dañu ko jagleel muy e édition coupe du préfinancement euh, édition 2023 ici dans la commune de ci fi ci commune Guinguinéo ñu dañu ko tuddee depuis 2013 une première édition mbekté lañ am lool vraiment ci ci ñaar équipe bi nga xamné dajé nañu di football supporters yi public bi ñëpp ñëw waa Guinguinéo ñëpp ñëw autorités yi nga xam ne vraiment am nañu jot ñëw am na ñoo xam ne invité nañ leen wax dëgg yàlla mais seen jot permettre leen ko mais ñu bari yoon leen délégation vraiment wax dëgg yàlla ñu ngi leen gërëm leen mais kontaan nañu baax a baax daal vraiment ci teewaayu képp koo xamante ni bii rek vraiment yaa ngi ci stade bi bi ba léegi mi ngi nekk en chantier ni nga seetloo turbine bi nga xam ne fa nekk installé euh, problème sécurité daa mel préfère defaat beneen ci côté bi pour mën a permettre nit ñi mën di seetaan bu marché amee loolu ñu koy rafet lu baax waaye dina leen gën a ñaax rek ñoo gën ci bàyyi xel gën ci góorgóorlu ba eggale stade parce que stade mu egg njëriñu vraiment acteur sportif yëpp ci Guinguinéo parce que stade la boo xam ne ci tolluwaayam moom rek moo toll fii ci Guinguinéo parce que yaatuwaay yaatu na am na espace bu yaatu macha allah am na itam ay terrain handball am na terrain basket ak volley sax pratiquement mi ngi fi mais suñu problème mooy mu àgg wax dëgg yàlla léegi nag du ñu def lu ko loo xam ne mënoo ko defal tëb defal ko bopp ci fi ko yaakaar fa ngay dem fi nga ko yaakaar ne bokkul euh, weesuwul nguur gi waaye itam euh, certains euh, ay bonne volonté yoo xam ne ñu ngi secteur privé bi am na ñoo xam ne engagé na waxtaan ak ñoom mais nag xëy na peut-être eggagul wala boog soreegul ñu ngi daal poursuivre vraiment suñu effort ak ñoom mais aussi di gën a ñaax municipalité bi nga xam ne dossier bi seen loxo la ne parce que stade municipal la bu ñu ko fàtte nguur gi aussi buy ñëw day ñëw rek pour jàppale waaye nag donc foog ne nguur gi aussi war nañ mën a bàyyi xel parce que loo xam ne ñu ngi ko def pose première pierre depuis 2005 vraiment yàgg na kon war nañ xam ne loolu amoon na fi mais ñu topp stade yi parce que programme stade yu bees ci département bu Guinguinéo ci Sénégal département yëpp loolu dégg nañ ko fi mais ñun amuñu problème stade beneen bi bu pare woon bii buñ ko daan defar beneen dina gën a baax waaye itam ñu fexe ba amul ñu projecteur mais amul ñu gazon synthétique parce que nag bu ñu fàttee ne doomu Guinguinéo yàgg na football Guinguinéo am na acteur sportif yoo xam ne sport la dundee sport la noyee jeunesse également bëgg ko gëm ko lool fonk ko am na talent comme ni ko gisee ni ci stade bi am na ñeneen ñoo xam tey ji yoo xam ne vraiment yu baax lañu mais euh, environnement bi mo dess environnement nak bu desee wax deug yalla pour nga mëna wané sa talent dafay daal di dess kon nak ñoom ñi ngi leen lancer un appel daal vraiment ñu jappal ñu baax a baax stade bi vraiment mëna paré bu ko défé ñu mëna gëna gën a ci sport bi. ndaw ñi xana di leen wax ñu gëna a góorgóorlu gën def seen bop ci moytu bu baax a baax lépp lu indi fitna parce que sport dafa sel un esprit sain dans un corps sain lool nak li ma ci bëgg wax moy violence bi nga xamni ñu koy némé ko ci sport bi bokku ci. dañ ko ci bëgg a boole parce que damay dégg ñu naan nawetaan dafa ànd ak violence déedéet wax ju yàqu baaxul nawetaan ànd na ak jongante mais une compétition dafa war a seen dafa war a sell ñu jongante ko ci fulla fit ak fayda waaye aussi ci respe ak discipline loolu mën na am ci sport bi léegi nag loolu li ñu ciy wax rek mooy kon ne di waxtaan ak xale yi di leen ci gën a yee waaye léeg-léeg nag nga gis ay mag yoo xam ne ñoom ñoo koy def loolu nag jaaduwut mag dafa war a yedd xale yar xale bu baax a baax waaye kon ñi ngi rek di leen gën a ñaax bu baax ñu gën a góorgóorlu di xam ne lépp loo xam daal jeunesse bëgg na ko ñun ñu ngi seen gannaaw pour jàppale leen ci. dañu toll ci phase boo xam ne phase bu xaw a doy waar la ñiy def seen candidat la candidature ci conseil constitutionnel bari na nekkul ne ñëppay jàll parce que mi ngi mel ni daa mel ni bu manqué la euh, téeméer bu manqué boobu nag. lu waay gàtt gàtt xel di nga xam ne lu ciy jàll dëgg dëgg dëgg bu ma dee fukk ca la yem ci li ma jàpp parce que bëri na candidature yoo xam ne wax dëgg yàlla ah duma leen tooñ waaye daal mënoon naa ñàkk mënoon naa ñàkk loolu nag bari luñ ci war a mën a wax pour régler cette question là mais loolu xëy na du objet tey bi mais ñu liñ war rek mooy gën a liggéey gën a travail bu baax a baax a baax vraiment ak ñi nga xam ne ñoom ñooy Euh, euh, responsable yëpp parce que bu ñu fàtte ne suñu coalition bi depuis 2019 ba léegi am nay problème 2019 bi ñu gagné après commencé na am ay problème parce que biñ li ci gën mujj mooy gis nañ ay départ yu bëree bëri yoo ne vraiment am enregistré nañ ko ci coalition bi loolu nag du def loolu wàññi ñu am nañu candidat muy Amadou Ba dañuy def tout pour mu jàll waaye nag nañu xam ne aussi bu conseil constitutionnel joxee ay ay ay ay ay ay jébbal ay résultat am na ñoo xam ne baax na ñu dem gisilaat leen pour delloosi leen loolu du ci ñàkk parce que c'est des jeux d'alliance ñun buñ ko deful ñeneen dañ ko def moo tax fii au niveau local ñun li mu ñu opté mooy nañu am jàmm ak ñëpp ubbeeku ci ñëpp rek bu ko defee bu yàlla dogalee vraiment conseil conseil tax na am na ñoo xam duñ jàll ñetul jàll nag ñu dem waxtaan ak ñoom ñooñu ah wax dëgg yàlla am na ci département bi am na ci commune bi am na ay mouvement yoo xam ne nekkuñu fenn ñi ngi xaar vraiment conseil conseil bu boobaa nag vraiment ñun aussi sunu participation sunu participation mooy fexe ba ubbeeku yaatal bu baax a baax li nga xamante ne bi vraiment mooy politique bi yaatal terrain bi wut ay nit parce que politique ay nit la bu ko defee yaakaar naa ne ngoonuk ngoonuk euh, élection présidentielle yooyu ci 2024 bi yàlla suñu borom dinañu defal ndam ñun waa coalition benn bokk yaakaar ni mu ñu kon defalee